salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen kontaane bu baax baax di nuyu suñu mbokk internet di amaat mbégteeg kontaante lutte motivation tey nag ñu fi nga xamante ni mooy géejuwaay seet koo xamante ni nit ku yàlla baax la muy saaxu borom butéel yi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy xam-xam fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy yeneen ak yeneen yoo xamante ni nit dina ko soxla ci li nga xamante ni mooy ñaan dañ koy bàyyi mu nuyu yéen bu ko defee ñu waxtaan bi saaxu ñu ngi lay ziar. bismillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad salallahu alayhi wa sallam rabbi israh sadri wa yassir li amri waqul noqdat min lisaani yafqahul qawli ñu ngi lay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Sakho ginnaaw bu nga nuyoo ba tey ba pare dañuy ñëw direct dañuy ñëw directement waxtaan ak yow ci li nga xamante ni mooy li ngay liggéey tey Sakho tey jii nii est-ce que mën nga ñoo wax kan mooy Sakho borom butéel yi lan moo waral borom butéel yi. waaw loolu gannaaw bu ñu sant yàlla bu baax comme ni ma ko waxee ju julli sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam Sakho borom butéel yaakaar naa léegi du jafe présenté ci réew mi ndax yàgg nañ si wàllum ñaan di si yëngu def ci lu nekk. di dem ci ay ru yu fasantikoo fu ne rek man nañu wax taxaw neen fi mo tax présenté suñu bop du jafe Seydina Ousmane buñ ko waxé moy ki nga doomu salum la juddoo salum màggee fa jàngee fa alquran ba wutuko ko fa xam-xam bépp xeetu xam-xam ñu gëssu ci tecc salum door dakar nak deug la koku moy saxu borom buteli kon daal bu la déggee dafa melni salum dang ko dang ko tocc rumbax dëbb ko dëbb wow, ba mu moom. waaw. door nga yegg fi nga xamante ne mooy Dakar. mooy Dakar. dëgg la. fan yii si gannaaw waxoon naa su ma duggee Dakar dana leer nañ ñi. dëgg la ndax lu tax ma dama newoon si ay tournée. Mm-hmm. def kan moo si àll bi. Mm-hmm. dugg Saalum dugg fu nekk. ngir gëstuwaay yeneen xam-xam yi. da nga xamante ne askan wi soxla neen ko. Mm-hmm. te jin ñoom ñun ñoom nañ fi nekkal. ni ma koy waxee rek. moo tax daal fan yëpp ñu ngi woon biir Saalum di tournée si xam-xam waaye yàlla mi nga xamante ni nag mooy def jàmm. lépp sot na. ñu gisoon ko euh, mois yi nga xamante ni moom lañ génn dëkk bi ñu bëri soxla woon la xam nga ñenn yi dañ la doon woo mais jotuñu la kenn xamul fan la lay jotee mais ñu dégg ni da nga génnoon dem fi nga xamante ne mooy Saalum am loo xamante ne déggante nañ nga ne daa lu nga uti ji woon mais lan nga uti ji woon lan lan moo manqué woon fi nga xamante ne moom nga nekkoon. waaw parce ba ma ñëwee ba toog xool Dakar nu muy doxee. ak serigne ci fi nek di yeungal seen doxen xemna ko trop lolu mo taxoon ma takkaat bagage yi duggaat Saalum xool yi nga xamanti manki ci dekk bi ñu fi wax ko ci bi dekk bi bu la njëkk nak moy doom aadama yi seen jafe-jafe da ngay dajé ni mu ñol doxna dem na serigne ba sonu waaye am ben rendement ta lolu yaakar na ne yeen amna lu ngeen ci xam yu mel noonu la bëgg bu jeexul ci dëkk biit ma ko mo tax mo jugaatoon takkaat bagage yi duggaat salum, lijjanti bagage yi ba yegna legi tok toog naa kon yeneen yeneen serigne ci luñuy doxale yow dal yow mi Sakho euh, neexu la. neexul ma neexul ma te rafa lu ko ndax nit bo yëkkatee sa alal jox la war nga sonu ci mom bam yegne ki ne kii na si man waaye jox la sa alal lang ko wax du ko gis wala mo la do ko nangoo jël wala nga sans ay numéro yoyu man rafa lu ko ciy topp di daw mi ngi topp ba mujj sax am na dañ lay boleke loolu daal man moom laa gën a sipsoni si biir dëkk bi taxoon ma génnaan nag duggaat Saalum ku ne xam na ne Saalum xam-xam fa la waa ci baax saaxo li nga doon tey jii da wala lan la dañ si judd mhm. màgg si yaru si pare jugaat nag defaat si gëstu dem si ay gox yoo xam gox yi fasantikoo ba yàlla mañ si xaas mhm. xam ne sant nañ si yàlla yakarna amna fuñ na afa ñu def ñaan yalla alquran la ñaan jangalé waye jëmono buñu ñu ci daar yi di jangalé ay nit dañ béyee ko gox yo xone ne yu sori la ñew soxla ñi si walum ñaan ñi dem ba xam ne lii mën da tuné ñu bayé lolu jël ben yoon bi teew nak walu daar ji ba teyit amnuñ ci taxaw waye ñun mom walu ñaan yalla rek lañ mësa nekk dox mos ñoo commerce mos ñoo def lu ñaan yalla mos dox jangale ñaan yalla kese kep ku ñakam xam nga ñakam mais métier bi ban euh, ban année nga ci dugg. Euh, man na wax ne bama xamé xamee ko mën naa wax laa dugg ndax Bama may nekk ci daara di jang histoire lay wax de bama nekk ci daara di jang na ko ci gox yu fasanti ko fekk mu foofu ci walu ñaan yalla ma kay ñaanal yalla mané ba ñibi sama kër bay dagut mu jigi daan neub sax waye am lo xey mëno ko neub bu mu jigi la door a feeñ nit ñi di ñew guddee beccëk tawan aw karan mëno ci dara lool yalla lañ koy sant ndax amaan yalla moko def ci ñun xana luñ la luñ donu la amna solo mbokk di len fatali rek ba tey nee tay kenn lañ seet si kenn ko xamante yalla da ko baxal muy saaxu borom butéel yi ñu fas waxtaan ak mom ci lu bari bari kep ko tay am nga problème li nga xamante ni mooy voyage génn dëkk bi saaxu mii moom moo ci gaaw nga am problème li nga xamante ni mooy sa diggante nga nekk jigéen sa diggante ak sa borom kër wala nga nekk góor sa diggante ak sa soxna saaxu mii moo ci gaaw leen loo xamante ni tey ji def na la ko sa yaram nga bëgg mu dañ boo ñëwee si saaxu mii borom butéel la koy dindil mais saaxu borom butéel it lan la namm ci ñi nga xamante ni mooy jaami. dégg ma. man ci ñi nga xamante ne ñooy jaami. jaam yi suñu ñoom ñaar kese la. seen jëf jëf teggeeku seen bëgg te yokku loolu mooy suñu mébét ci jaam ñi tax ñu siy dox guddi ak bëccëg ba tax na dañ laas appel képp koo xamante ni am nga jafe-jafe boo xam ne dox nga ci ba sonn ba nga yaakaar ne lii moo dootu dëñ ñooñu ci la ñooñu laa gën a soxla. mais ñu gis ni léegi réew mi euh, jeunes yi ñu bëri nañoo bëgg tukki ko wax mënul tukki liggéey amul fi nga xamante ne mooy Sénégal waaw tukki moom ñooñu bu ngeen bu bëggoon ñëw gis la lan ngay liggéey tukki moom lu ma si liggéey loolu yaakaar naa 15 jours du ko passé waaye si fekk na nga am passeport moo xam nga am xaalis wala amoo xaalis waaye ndem am nga passeport bu ñu waxtaanee ba déggoo si kàddu la may liggéeyal 15 jours laay liggéey sama liggéey hmm. nit xool na dama la bëgg yow nga tukki 15 jours 15 jours maa la wax lii nga lijjantil ko loolu noonu 15 jours mooy lu gën a yàgg bu amee passeport waaw bu amee passeport tikki mom yaakaar naa lu mu ci def man mako nek sa di wax. moo tax léegi sax fand bo dama koy xawa bañ ndax ñu tan ni dem ba yegg mhm. affaire xawa deugar ci mom ta man dama gëm ni nit mëna tok ci dëkk bi am. nit mëna tok ci bi dëkk bi mhm. am ba yegg na yow mhm. am nga. waaw. ndeysaan mooy ñi nga xamanteni ne dañoo am problème ak seen soxna. mo xam liggéey bo xamanteni dañ ko def mënul tey. kogu mom bu ñëwee balañ ca njëkk def dar nak ala kulli haalin foog ñu sétku ko ba xam ndax lu dox seen dëngëte lu ko waral ben mi def def wala wi ila mi ben rawan bu leen yaqal wala mo am leen lo xane def ci laxasu mo tax ala kulli haalin bu ñëw dañ ko sét gëssu ko ba xam ko bu de nak bëgg na déggo soxna ci koku mom ñaari fan lay diire 24 sur 24 ñoy raw mburoo so bu neex yàlla ñaari fan ñaari fan ñi melni mel mais ki nga xamanteni tay ji mom am mënul ibbeku tay ji lepp lo xamanteni bëgg nako rek bu ci défé xélam du am koku wa lolu moy yaakar mi tass amna ño xamne luñu yaakar day tass wala buñu amé du taxaw seen loxo yi wala ku leen dek fomu ko koku la ci gëna bari moy chat dana ko waral Chat. ak ko xamne dañ ko yaq chat lan mo koy chat dana ko waral ndax doomu adam lamiñ dañuy wax ne jigur sax bant boobu asuma garab asuma doomu aadama te am na ñoo xam ne lépp lu seen làmmiñ laal loolu bu ko yàlla naroon dogalit da ko effacé am na ñoo xam ne seen bët lépp lu mu tegee bu naroon na tey mën na fomm bu ko defee nag alquran moom bàyyiwu dara ndax suñu borom moo ne ñi addooni astajib lakum ñaan leen ma may leen bu ko defee ko bu ñëwee dañ ko ñaan yàlla ba la ko noonu dal ko mën a tegeeku ba set wicc waaw. tax la kulaal bu ñu ko xoolee ba xam lan la jox ko si ay yoon yoo xam bu ko jëfandikoo si kàttanu yàlla ñetti fan jafe-jafem tegeeku. tey jii nii ah, dañuy gis ah, ñenn ñoo xamante ni dañuy dem ci ay mara ñu ne leen kat yéen seen liggéey ci ah, néew la nekk quoi ci armeer la nekk te ci néew lañ ko def mais boobu liggéey parce que Sakho buñ buñ ñëwee wax ko moom dina def le maximum pour euh, dimbale ki nga xamante ni moom lañ def loolu. kooku bu ñëwee dama ne la liggéey bi fu ko mën a def ndem doomu aadama rek moo ko def liggéey la bu ñëwee ñu toj ko duñ ci yem de dañ koy toj jox ko kaaraange kooku liggéey mu këpp sa kaw. dana am loo xam ne buñ ko liggéey am na ay xas waaye du mu tudd xas yi nag ay xas yoo xam ne moom lañ koy bañ toog ba mu ñor. ay secret la waaw. kooku buñ ko defé bam paré pare ko bam ñor mu wàccee ko ba nga xam ñama ñemoon ko bu ko sango ba pare jël xasmi mi gas ko suul kooku liggéey dé dee kooku liggé xey timi ñu suul la liggé dé dé dee kooku liggéey suba la timi ñu rob la lool graw na dé ma la wax lool waaw wala moom yaakan amu si ben masla buñ la ko joxé na ba pare ba liggé bi dañ dañ lay jox kaaraan xamanteni xamante ni hmm. fa lu nit sanni ci koom lay delloo man loolu lag mais ñi nga xamanteni tay mi dañuy jaay moy jaay jaaykat yi bëgg seen jaay euh, seen marchandi jar tam wa ñi ñi de mom bayar rek bayar wa bayar na am nañ ci bo xamne ne balañ la ka jox al fuk dañ la jox karange mucc ci làmmiñ mucc ci pexe yu boni ba para do la jox bayra bo xamne boko lalé ci carton yalla lepp lo lal lepp lo yéré yow day dem dama ragal sa ba yéré yëre yi nga sol nga summi ko diga jaayal wa bayre na ndax tax boo koy wis mu lal si yéré yi nga sol ndax itaan nit yër benn ma tëral ba ci kanam jël ko jaay ko ñaan ki lu maam jaay fekk dafa lal lo xamanteni lu tax dar du taxaw ci loxo mo tax sama bayre bu ma la ko joxee boo koy jëfandikoo lépp loo xam bëgg nga mu dess ci yow bu mu ko laal mais bëgg laa dank jaay mënu ci dara da na bay ro bu upp bari ki wu baxul mo day fekk mo ñaka da kanak rek hmm. waye su bari am karange baxna ah bay da war and ak karange lu bari bëri wax ju lu bari bari bari hmm. bëri sa di gëna dox ci kàttanu yalla waaw amna solo mais tay ji ni lan ngay wax ñi nga xamanteni tay ji ni moy ñoy nekk ci kër yi muy jëk rek jabar lelek, gis nañ kër yi amna yeen kër yo xamanteni neexatul waaw ku góor ki day am day am feebar feebar li nga xamante mooy faiblesse sexuelle mais wala impuissance tey jii ñooñu noonu tey jii ma saaxoo dina dox si côté boobu tamit. dama ciy dox baax a baax a baax ñooñu promotion laa leen defal. mooy ñi di gaaw a daal di gaaw a yëg seen bopp. waaw mooy problème kër gi rek. ndax jigéen ñi moom lu ne mën nañ koy muñ. dépasse mën na manqué ñu muñ ko. seen diwlin mën na jeex ñu muñ ko. waaye nag amna lo xey mo ne ci mënuñ si waaw kooku nag bepp gor go xam arwe na la dal na la dina la dimbele dafa la ci ay traitement si lu yalla ba nga yegne tago nga mom mais traitement yi ah, kale lay traitement yi nañ koy jëlé moy ñett fan nga xey jël ñett fan yoyu nak da ngay dëggal mo wax lu bax ñett fan yoyu balanka jël da ngay lek ba sur jël suba bañé ba sour jël benen ba mu ba nak da ngay rër ba war a tëdd ko jël koku sept sour lay dir ñaar lañ diire. sept sour lay dir parce que lolu mom duñ tuddi pire bi ndax ñoo ñu dama leen defat promotion motax tax ndax itam man nga wax pire bi nit bëgg ñak am pire bu ñak ñew dama bëgg liggéeyal yalla ci lu ñu def ni ndax amna sey si yokk ne loolu moo ko amna lo ñoo xam seen sey loolu moko tass waye waaye képp koo xam dal na la buñu ñu ci katnu yalla bo ñu bo ñëwee ñu raxas bam ci du ci yow. kon loolu la da nga koy euh, faj li nga xamante ne moy vite fait quoi. dañ koy dind bam ci du ci ndam ju juddaale wut ko. ndam ju juddaale wut waaw bu ko juddaale wut moo xam dañ ko takk kala wala day gaaw daanu ak yeneen yeneen bu mu ci mëna doon rek bu ñe mën nañ ko faje bam ci du ci léegi bu ko ju nag. bu ko ju juddaale mom ñaan yalla kese lañ ci man ñaan yalla rek ba yalla moo ko tek ko loolu lañ ci def waaye dañ ko jox benn tegtal bu ko juddaale ñaan rek kurus waaw. am na solo mais tey jii doo dem te duma la laaj ci li nga xamante ne mooy actualité ñu gis Sénégal demoon coupe du monde sëriñ yu bëri génn à chaque fois bu euh, Sénégal di football ñu ne résultat yi ni lay demee naam ak nangam ñii naan dañoo am jin ay jinne ñii ne ñii tamit naan dañoo am ay jinne mais tey jii ñoo yooyu sëriñ tey euh, Sakho lan nga leen wax. sëriñ soosu ñoom ñak xam-xam si ñamu dale ñak xam-xam si ñamu dale ndax sëriñ dëgg da nga la xamal nga xam pare gis ta do wax ndax suñu borom mo né faalun lima yurud man yaala mayru la ko sop yita man nga gis mbir ba nga wara ñew suñu borom wan lako ko nga genn wër sa bop suñu borom ci lool xamal na la kat man yaal rek ma fi nek te dina wax ben affaire gis nga jinné doomu aadama moo ko may moo ko moo gën a for. waaw man dama am jinne koo nekkul dam si doomu aadama yi daal damay gis ni naa man dama am jinne fekk jinne am ko du dara doomu aadama moo présenté yàlla si kaw suuf mooy xalifaam yaa daawud inaa jaalnaa xalifatan fil ardi ko wax yàlla doomu aadama la jël def ko mii présenté si kaw suuf te yàlla ñaar la bind jinne ak doomu aadama ne leen jaamu leen ma te nga yéene jinne ju gën a yées manam niko gëna yess ci doomu adama mok jindi joona bax man na wax na ñu tollo xam xam bokkuñ may waaw mais bokkon nga ci sëriñ ci doon genn doon wax wala wa man nan senegal day door wala senegal dañ koy door maxi bi am ñu mission de deugantit doon nañ ci def ay ñaan waye mëss ñoo taxaw antu na senegal day door sen mak ci dem bi passé nak dem ba mo jéké 11 h 10 h ma jug bëgg yeesalaan japp dugg sama salle de bain sama robinet am bendok, ndox ma def sama xol gisuma dara ma tawsul si yalla jekki ba mën am ndox wala si la jug dugg si bitik bi ut fa ndox japp julli sama ñaar rak ñaan waye dem mo wax deug yalla amna luma lu waye waxuma dara nak mas bi seetoo ko laa match bi dama ne xool nañ ko bañ nga xool lañ gis dara dara dara leeruñu si si lañ jóg bëgg ndox jàpp pour lañ gis noonu jëm ci ay pexe mais mënuma am ndox mënuma am ndox waaw si nga si nga yaakaar ne tey moom du baax du baax kenn kese la xam ne ko ma ko ba may liggéey ndox robinet dafa ne ma ma dugg biti ndox ko ndox dara fekkone ba ma juk jug def dama am ndox suma ñew suma su yalla man nañu man nañu rus ma ñu ndam maxi bi loolu laa si gis serigne ci nga xamante ne ñoo taxawoon ne day jël coupe bi wala dañ cey door ñoñu nañ baye xel ne dam adam dam adam lay doon te toppalaa place yalla te yalla amul kenn ku may al alkamaalu lillaahi yalla rek mo mat nañ gëna baye xel askan wi ndax xamna la ci lo xam ne nit ñi la yëpp sen bop yëpp nit ñi taxaw di wax lo xamne xam nga la ngay wax dara amul ci léegi dem nañ sa ba kenn gëmatu leen bu ñu génnee ñu ne ñi a ngi nii. waaw ñoo waxoon nangam ak nangam mooy ñàkk xam-xam bi rek mais ñu xam du du na jamon bu ñu gën di wax lay tax ñu wax moy dañu gis lo xamanteni ëpp na ñu taxaw wax ah lool moy lu ci nek rek waaye wax deug yalla senegal mom ñu ñu ñu ñu ñoo tëddee sëriñ ñu mom ñooñu moom duñ duñ sëriñ. mais équipe yow yaakaaro nga ni dina dina dina teel ko no équipe mom man yakin, yakin na amona yakar ne dañ tok amona si yakar bu baax waye teewona na ngi ci doon def ñaan ndax ñaan man na lu ne musibu dana wara a ci kaw wara nek ay ton ngay ñaan di ñaan ba mu gëna a oyof ba mu wañeku trop moo tax nañ ci nañ jital yalla suñu kanam xamne yalla mo yor dogali mo yor mbir yi ci si lay wax képp ku ci bëgg la ngay liggéey barke wala loo wax mu xam na nga jël yàlla def ko sa kanam. xeexante bi dafa bëri. mooy ñàkk xam-xam gi rek ndax buñ gëmoon ne yàlla mooy maye kenn ku ne la nga yor yàlla moo la ko jox nit man taqi nit kon duñ sonn mais kenn na bu ko taxaw ne xam naa lépp ñàkk xam-xam fa la dalee waaw foofu laa ci tontu. am na solo mais tey doo dem te duma la laaj tamit ci combat Boy ak Balla Gaye numéro 2 coow li na trop dañoo dégg benn Balla Gaye instant nga ko jekku ci li nga xamante ne mooy mystique ba tax na am na loo xam ne dañ ko koo def te mu ci li nga xamante ne mooy euh, bàmmeel tey jii nii boobu boobu euh, réaction noo ko noo ko jàngatee. xam nga moom fekkee ne na Balla nañ ko si mystique am na si loo xam ne si bameel lañ ko def loolu nga wax comme yaakaar ne Balla Gaye loolu mooy tax ñu daan ko mu ci erreur ndax Balla Gaye lañ ko def noonu. ak lu mu nek a max bi ñëwagul xam nga. combat bi ñëwagul ma ngi jum sanan naan max bi. combat bi ñëwagul diggante boobu Balla Gaye bu jigé wala ndawum juk dem am fu dem lañ ko def non dañ koy dindi bam sét wicc dégg nga li la wax ma tokkon buñ ko tënk fofu kon loolu daanul mbër. déedéet mbër mbër dem ba jéko def la nga def lepp nga dugg ci lam lepp la doon yakko amna na ñoo xam duñ génn seen nek seen kuru lañuy tok tok fañ tok yàq lepp luñ defar ci lu bon. mais sarax bu 100 francs mëna mëna mëna mëna euh sarax bu 100 francs mëna euh def ay yenn tektal yi. waaw lo xamantene ay 60 millions lañ ci def wala 40 millions. mën nako ndax sarax dafa am nañ koy génnee njëkk nga bëgg sarax dafa am noko wara war légui nit ñi seen sarax mom am dañuy jéki ba nga xamante tay tey neen wala jaaxle neen door génne sarax bi ko mo nit sarax dang ko defal ni rek génne ko ko kese mbirum lepp bax jaru sax nga ko jox mu sanga bu ko ñaanal yalla nit bi sax la am yalla jox la wa leg yalla kum dox sa digeenté jam est ce am na ko man si yow dara foofu lay waxe moo tax sarax data ñaar dërëm yu nga jël sarax ko sax manal defal sa dina ba nga bekk yow qiyam defal sa defaral qiyam ba nga bekk man lu la gëm bala ak boña actuellement comme kan mo djé ñom ñaar wax bala boña ñom ñaar ñep kenn ku ci nek bayul bopam kenn ku ci nek mu ngi dox doxin wu am solo kenn ku ci nek nak mëna def moromam lu graw ñom ñaar ñom ñaar kenn ku ci nek mëna def moromam lu graw graw graw ci côté mystique ata mystique ata bëre lepp ci bëre ak ci lepp motax kene ku ci nek dal bëgg na ko sa morom. loolu la si parce que dina metti dal dina metti torop du yomb. du yomb benn yoon waaw du yomb du yomb ñu bëri na mën ci daanu. waaw ñu bëree bëri bëri man nañ ci am décision bu yéeme sax. mekkel mën na am. lool sax. ci ban ko parce que nak dama bëgg ma am joxe lepp ndax dafa am ñoo xane ñen ñi samay wëllu ñen ñi ma jégelen ta su xasse wax lo rek danaka man na am wala ñu sonal ma sax ci digënté bi ta fan yii man dama bayoko ko comme ni ma ko waxee yi si bëri man xajuma ci waaw. waaye daal incha allah combat bi ci si kàttanu yàlla nit ñu dañ leen jaxal moom lo dal leen ci teug bu wax ak mom wala liggéey ak mom ci ban ban numéro ban numéro. la la mëna amé numéro yi mëna jël. 78. 78. 480. 480. 96 90. 10 boobu mooy numéro whatsapp bi 78 480 96 90 waaw numéro boobu nag uh-huh. toujours damay wax ne uh-huh. képp koo xam ne soxla nga bëgg liggéey ñun dañuy yónnee wakaal bàyyi ko ko defee bu ñu nee ba bi manam tontu la si beneen numéro bi boobu 78 la 557 557 52 04 52 04 waaw 77 78 557 waaw 52 04 beneen bi 70 la 552 41 05 ñett numéro yi mooy numéro saako borom butéeli ku mu soo da nga ma jot wala da nga jot sama ndaw te li ngay li ngay liggéeyee méttiwul déedéet waaw ndax nee la mbir boo si juddoo màgg si yaru yaakaar naa da nga ci bàyyi xel suñu borom mi nga xamante ni tey moo jëlee def ko si yow ñu si bëri doole yemuñ moo tax fokk ñu bàyyi xel askan wi te xam ne nit ki lankate ne si koy dimbale moo tax daal képp koo xam ne am na jafe-jafe bu ñu déggante ci kàttanu yàlla yàlla mën a dogal la nga bëgg sotti bu neex yàlla. am na solo xam fu ñuy tàggatoo mooy tey ji lan moo waral saako borom butéel yi ba tey leeraloo ma loolu. waaw nee naa la saako borom butéel yi butéel yi moom ku ko ñam ku nekk yaakaar naa da nga del siyaat bëgg si ma boo ñëwee ne mën nga yéex ndax li ñëpp bëgg mënta yomb loolu moo waral saako borom butéel yi garab yi ñu bind alxuraan la ñu liggéey def ko ci butéel yi jox la ko lépp lu ñu faj alxuraan ci lañ koy faj moo dem ba law ñu wax saako borom butéel yi waaw loolu moo indi borom butéel yi ñu def ci kemtaan bu nekk nag waaw lo dal moo ko waral waaye nekkul loo xam ne ñoo ko jël rek maam tuddee ko suñu bop dedet ñi ñi jëflanteel ñoo ñoko ko ñi wax borom buteli buteli butéeli nga xamante boo fa démé rek gis sa bop amna na sa ñuy wax gis sa bop waye waaye loolu yalla yàlla lañ koy ndax suñu borom moy def la ko sopp ci jaamam mo tax dal dañ ci sant yalla baax a baax a baax waaw. solo loy tàggatoo ak mbokk lutte motivation. waaw ñu leen sant bu baax di rafetlu seen liggéey ndax ñu leen di suivre baax a baax baax di la ñaanal yàlla seen lii dem ba nekk tele tele, télé dem ba génn réew mi yegg fu nekk te allah am nañ si yaakaar ndax teg ngeen si yoon bi yéen a ngi def doxin bu am solo ndax da ngeen doxoo dëgg yàlla mën nañuy wax na daal euh, social mu si te léegi bu nekk rek nit ki la may liggéey si la mën a jaamu yàlla lii daal ñu ngi ñaan yàlla hubbi leen si ba ngeen xam ne yàlla hubbi ndax yàlla képp ku mu lum mi ci ma lum lum lum lum tuuti ndax mi ci du tuuti ndimbalal mo se nek nekk kon yalla na yalla rof ci dimbalam ba ngeen yëg yalla rof na ci dimbalam ci inshallah yalla yàlla dina ko def aw dal la wax ci côté bobu noonu aw di sante yalla bu baax di len sante di sante euh, ki nga xamanteni moy cameraman bi comme neen ko waxe rek fës di ñaan yalla seeni may di gëna yokku baax baax baax lepp li nga xamanteni ne lu ñu ragal suñu borom dàqal len ko lu ñu yàq suñu borom jox len ko xaar len ci ko xaar len suuf di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. aja am na solo nee naa tey fi nga leen ñëwoon fi nga xamante ne mooy géejuwaay seet koo xamante ni mooy saaxo borom butéel yi nit ku yàlla baaxal képp koo xamante ni euh, bëgg nga euh, jokkoo ak moom euh, numéro yi après dinañ ko def foofu ci suuf boo ko contacter rek après di nga ko jot incha allah di jaajëfal ki nga xamante ni moo nekkoon ci cadrage bi Cheikh ci liggéey bu rafet muy def di leen wax seen émission xaar leen ko ci beneen numéro ak beneen daanaan. jéglu bu baax ndax am na loo xam ne dama ko fàtte woon mooy ñi nga ñu may jotuñ ma soxla ma ñu at ma ñaan leen ñu may ñu maam ñi bañ a ñuy comprendre ndax nit fekkee ñu ñu ko soxla dañ bëri mën a waxoon ne kii heure su ma koy jër ko waaye nag ala kulli haal ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm di jégalu képp rek xamal jot ndax man sama téléphone kenn du koy soo mooy jël woon rek xamal ne benn dama japp kurus wala ma ko lol suma pare dina la def sim nga amu ñu waxtan numéro yi ma joxana ko mo so soo danga bu neex yàlla 400 bob moy whatsapp bi waaw ñi baye xel xamne ku ñep soxla yenn wagal yi yi wala yu guddii wala jël temps wax 10 minutes loolu ñu dimbalima ci bu ma ne ñak moma gënal waaw loolu la laa dina ko ci yok waaw jërë ngeen jëf. amna solo seen émission xaar leen ko ci benen numéro ak benen daanaan. jaa ngeen jëf